Ama Dia normal mooy génn noonu doomu ndey Ama Dia doomu ndey Ama sëriñ baa ngi noonu këlëri da ñett nee na si ne yàq nañ yàq ñu cuuj laay la la la waaw laay la la ay ay maam ay yaayam ñu nañ dëkkandoom mel ne Ama Dia mooy génn noonu ama ngi noonu am trop la Ama ah, mel ne ah, magam moo taxawee noonu waaw ah, gis nga dafa mel ne moo taxawee noonu di xaar Ama Dia ngi noonu di génn naka Ama Dia ma ngi noonu di génn naka Mbër ngi noonu di génn Ama Dia ngi noonu Ama Dia ngi jooy émission Ama Dia ngi noonu di jooy Ama Dia ngi noonu di jooy Ama Dia ma ngi noonu di goo jooy doona yaram Ama Dia ngi jooy Ama Dia ngi jooy oh Ama Dia ma ngi jooy Ama Jo mu ngi jooy ah mu ngi noonu di jooy mu ngi noonu Ama Jo ngi noonu Ama Jo ngi noonu di jooy ah gaa yam nañ ko ah non non gaa wane fulla wane jom Ama Jo ngi jooy ba léegi Ama Jo ngi jooy ba léegi Ama Jo ngi jooy ba léegi man waaw waaw yow ñëwal dina daal léegi dina daal amu nga defal amu nga defal am nga defal am nga defal ama jaa ngi noon di génn ama jaa ngi noonu di génn ama jaa ngi noonu di génn ama ngi noonu di génn laay laay la laa am sëriñ ñam moo ngi koy defal am sëriñ ñam moo ngi koy defal ba léegi arrêté wul jooy mooy noonu am ma ngi moom moo ngi koy defal nee na ko garaawul laay la la nee waa yëmbal lépp ginnaaw la la la nee na gaa yi neen génn gaa yi neen génn mooy noonu sotti ay xorom mooy noonu sotti ay xorom mooy noonu sotti ay xorom Ama noonu génn ba léegi moo ngi jooy ba léegi moo ngi Ama Dia moo ngi jooy daan na jooy jooy bànneex yàlla jooy jooy mbégte waaw ah, booy ba ngi yuuxu Amadia waa yëmbal waa yëmbal yab nañ ko ba léegi mooy noonu di génn mooy jooy doomu yëmbal bi Amadia Amadia mooy taxa ki nga xam ne mook am moo ngi noonu Ama Dia ngi noonu si buntu moo ngi ñu koy sotti saafara bi ñooy noonu di xabtalu ñooy noonu di xabtalu Ama Dia ngi noonu di ay picc mbokk ñoo ko gisandoo Ama Dia yi di waaj dugg Ama Dia Ama Ama Dia yi noonu Ama Dia yi noonu rasta guñ gaa yi noonu waa Amadia gaa gaa Amadia kon bi mbër bee ngi dem mbër bee ngi dem koo baabay mbër bee ngi dem Amadia ngi dem Amadia ngi noonu sëñ baa noonu di dugg doomu ndeyu doomu ndeyu Amadia ki ma am. chaque jour chaque jour mu xas ko. chaque jour mu xas ko borom naanaa bi. borom jaxatu bi. ah ma di dem. ah ma ngi noonu di dem. noonu. waaw yëmbalo noonu. waaw yëmbalo nañ. ay waay la la na. li mooy départ Ama Dia. li mooy départ Ama Dia. li mooy li ma départ Ama ko oto baa ngi noonu si oto bi kon moo nekk na si oto bi Ama Dia nekk na si oto ngi noonu di dem stade ba ngi noonu di dem Ama Dia ngi noonu di dem Ama Dia ngi noonu di dem añ moo tax gars yi ñëw ba ngi Ama ngi laa ilaaha illallaah laa ilaaha xanaa jox na dig daje ba si kanam. kaay kaay. Demba la. waaw. waaw sant yàlla rek comme nu ñu ko doon waajee rek ak waa yëmbal yëpp. waaw Ama Dia moom ndeysaan dañ ne rek nit ku baax la nit ku am yar la moo tax bisam moom lépp lu ñu jàppoon dañ koy bàyyi ànd ak moom. di ko ñaanal yàlla may ko ndam di nuyu nag suñu yaay yi nga xam ne depuis suba ba léegi ñu ngi si añi togg si añ yi xam nga jàppale ñu si lépp waaw di ko ñaan rek yàlla may ko ndam tamit yëmbal tamit nii la rek ñun ñëpp moom dañuy mobiliser rek chaque jour ku am bis rek dañuy ñëw jàppale taxaw la booy bu yeboon na nga waaj ak say mbokk tey bu ñëwee nga xam ne dëmm yi ñëw nañ de wallaahi waaw yal na ko yàlla may ndam déedéet wax abajo daan na ko bu yàgg waaw xam nga xam tey mun nga toog toog sa ruq wala xam nga ventilateur yi ëpp la ngay wax lu la neex mais bis bu ñu tëjee barrière mu xam ne Ama Dia cin bokkul cafin li am làmb ja ñun waa yëmbal ñoo koy def te yàlla dina ko may ndam incha allah waaw jaajëf dina bëre dina xeex lu làmb ji laaj ñu def ko waaw lu làmb laaj rek ñu def ko waaw yàlla na yàlla def jàmm rek waaw waaw gaan dinañ wax na xolal waaye na préparé rek mhm. xam ne tey jii nii waa yëmbal ñoo ñëw tey ñëw ak yaa ngi dégg Ama Baldé doomu yëmbalam bu xewle ñëpp dañuy génn taxawu ko te jàmbaar la champion la ndeysaan yow foo juddoo yow foo yaaroo ani waa yëmbalo yëmbalo yaa ngi nii jàpp duma ko daan ko mu jeex